yee nit yi si feebar loolu am solo la te encore tey soxla nañ leen tam pour loolu pour que ñu continuer ndax ñoom ay porte-voix lañu ñu mën a wax nit yi ne tey su fekkee mesures yooyu levé nañ ko mais war nañu continuer seen activité war nañu continue distanciation sociale yi war nañu continuer du def port de masques foog naa loolu moo ñu si génn ndax gis nañu ne commencé nañu vacciner suñu réew mais loolu dañ ko war a accompagner ak mesure barrière yoo xam ne gouvernement jëlal na ndax maa ngi leen di gërëm si loolu bu baax a baax loolu moo doon suñu waxtaan tey di leen gërëm encore pour accompagner seen dëkk seen réew ñu accompagner seen gouvernement ñu accompagner suñu population yi pour que ñu mën a respecter mesures yooyu loolu laa amoon su ma leen waxtaan ak ñoom tey jërëjëf